mbokk yi dal leen ak ñu indil leen ay leeral ci li waral ba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mujje wut recevoir délégation bu nga xamante ni soxna Aïda Diallo mi fi nekkoon soxna Cheikh Béthio Thioune yónni woon na ko foofee ca Touba ngir ñuy jox addiye Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ay xari tabaski boobule délégation nag te ki ko jiite woon di wuyoo ci turu Serigne Saliou Samb di bëkk néegu soxna Aïda Diallo ginnaaw bi nga xamante ne egsi nañ foofee ca Touba Serigne Mountakha Bassirou Mbacké dalalu leen loole nag la ko waral moo di ñëw mi nga xamante ni ñëwoon nañ fa ci atum 2019 foofee ca Touba te Serigne Saliou Samb jiite woon ko ca jamono jo nga xamante ni coow li woon na lool ci diggante Aïda Diallo ak Serigne Saliou Thioune ki nga xamante ni moo di Serigne Saliou Samb di bëkk néegu soxna Aïda Diallo dafa enregistré woon Serigne Mountakha Bassirou Mbacké ci li mu yëgul la nag metti woon lool xalif général des Mourides ba tax nag bi nga xamante ni ñëwaat nañ fa yoon bi talibé yi dal di sàkku ci ñi nga xamante ni ñoo di délégation soxna Aïda Diallo boobee te nga xamante xamante ni Serigne Saliou Thioune ñoo ko jiite ñu daal di bàyyi seeni téléphone foofee ca biti waaye nag bu ñu sukkandikoo ci journal bii di l'observateur kii di Serigne Saliou Samb di bëkk neegu soxna Aida Diallo a la coow lu bari daal di jóg dox ci diggante bëkk neegi Serigne Mountakha yi ak Serigne Saliou Samb ak délégation bi mu àndal coow loolee nag bari gi mu bari daal di mujjee àgg ci Serigne Mountakha Bassirou Mbacké mu nga xamante ni jamono jooje ma nga nekkoon ca biir résidence Khadim Resol ci la daal di sàkku ci ñi nga xamante ni fa doon joxe ñu daal di dem ba beneen yoon ndax kat coow loole dafa mujjoon di ko déranger bu baax a baax ci noone nag ci la délégation soxna Aida Diallo bi ci njiital Serigne Saliou Samb daal di mer ba futtu daal di buude dem ñibbi boobulee ñàkk recevoir nag ñoom taalibe yi soxna Aida Diallo yi nag dañoo jàpp ni ab manque de respect considération la envers ki nga xamante ni moom lañ jàpp ni mooy seenub Serigne di soxna Aida Diallo fii lañuy yam dinañ co topp indilaat leen ci yeneen i leeral jërë ngeen jëf